asalaamaaleykum internet Senego TV ak Kawtef nuyu nañ leen bu baax di leen di dalal bu baax ci suñu plateforme comme ça su ne rek ni ma koy waxee dañuy kontaan ni ngeen ñuy toppee di suivre suñu programme ci suñu différentes plateformes yëpp ci noonu aussi ngeen di liker suñu vidéo gis nañ TikTok reprise yi nga xam ne yéen a koy def mu am solo bu baax a baax à chaque fois que nag invité wala sax actualité daal di jóg. wala li nga xam ne mooy actualité buzz wala people dañuy ñëw doxantoog suñu micro tey ñu ñëw seet si ki nga xam ne nag jamono ji bu ñuy wax te waxoo li nga xam ne kaay wax lu baax waxoo fi dara ndaxte it ki ko wax ki mu ko waxee fa mu ko war waxee la ko waxee ba mu ko waxee it ba mu génnee ñu xam ne moo ko wax bett ñu bëri maman sooda Bousso di tànt ci ñenn ñi wala sax ñi nga xam ne maam la ci ñenn ñi di def lu baax di wax lu baax ci dëkk bi ba ñu ko xamee ba tey nag fii ci actualité muy génn di wax yu baax ci diggante góor li nga xam ne mooy diggante griot ak ñi nga xam ne ñoo nekk seeni sang ñuy defante yu baax maman Soda Bousso la ñu dalal fii tey ci Sénégo TV ak Kawtef ñu bàyyi ko mu nuroog internet yi maman sa orange rafet na bel li macha allah du yow sama doom gi loolu dama la ci utal <laughs> waaw waaw Fatou Mbengue rek dama la ci utal coton la tudd tuut rek waaw jànke <laughs> ñu bàyyi nga nuyonteeg suñu internautes yi. asalaamaaleykum mbokk internautes yu Sénégal yëpp maa ngi leen di nuyu. di nuyu directeur bi monsieur mbake di kontaan ci ñëpp di bëgg nag ci sama rakk ji ñëw muy jànke ànd ak nag sama cousin xarit nga xam ne mooy sama cousin xarit di cousin xarit si sa jaaxa vraiment lu monsieur le caméraman di suma frère di nuyu nag mbokku. internet yëpp c'était. Mhm. kontaan nañ maman gis nañu tey journée bi changé na trop. ak li nga xam ne mooy tournage mais da nga pare rek. Mhm. daw si ñëw nee ñu jànke ñëw leen ñëw leen ci invitation bi et la ciy gërëm. noonu la yéen noo dem saa yéen mu leen dem saa ñun. Mhm. ñoo bokk lépp jànke tout ko aussi day site boo xam ne dama ko bëgg. dëgg la euh, surtout farata la. kontaan nañ maman tey ak invité maman Sode Bousso dinañ waxtaanee singalam bu bees bi nga xam ne génnee na ko muy kay wax lu baax singal boobu la ku ko déglu rek di nga gis li nga xam ne mooy liggéey bu am solo. Mm. di def boo seetaanee clip bi di nga xam ne euh, liñ ci wone ci ay sañse macha allah <laughs> boo dégloo sonorité di nga xam ne musique. la maman indi wante du ñu yem li nga xam ne mooy ci clip bi parce que dinañ jàll ci li nga xam ne mooy actualité. Mm. ñëw ci sa actualité ak li nga xam ne programme nga ko pour promouvoir boobu la single mais tamit dina ñëw ci actualité tey tabaski mu ñëw tey tout ce qui va avec euh, la fête dinañ ci jéem a waxtaan. Mm. ak maman Sodé Bousso ñu ñëw ci Kayba moment ak contexte bi ñu ko génnee. Mm. ñëpp di ko TikTok. ci say kàddu nga ne Kaay Baax bi ainsi. Kaay wax lu baax depuis wax lu baax. Mm. depuis trois ans. Mm. ba tey muy door a génn lu doonoon problème waaw <clears throat> xam naa ërëm rek ndax defe naa suma xarit mag suma mag bi ma ci àndaloon mu ma ci aw su dafa génn àddina. Mm-hmm. fekk ko fi. donc euh, day loo xam ne kay wax lu baax jànke moo fi war a am moo fi war a nekk moom leen fi war a bàyyi muy wax bu am solo ndax wax lu baax léegi amatul ci réew mi. Mm-hmm. ma ne fu ñu ko teg saay-saay ji ci réew mi boo waxee ñu mere la nañuy wax lu baax te def lu baax ndax a wax dëgg jëf dëgg moo ko gën te émission day loo xam ne billaay amul lu ko ëpp waaw boo xam ne defee ko foo xam ne nag ci musique boo xam ne bokk na ñoom waaso ñu jële ko ci kasaaf daal koy transformé ba ñu am ci ay sonorité am na mbëpp am na mbëfër am na riime am na jolli waaw xam nga loolu moo jaaxal ñépp nag ak fi ma génne waaw waaw moo tax mu jaaxal ñu bari waaw mu jaaxal ñëpp nag ndax xam nga foogu nu woon ne man mën naa foofu waaw da parce que ñu ngi xaar. Hmm. Tata Soda ci mbalax bu saf. waaw waaw génn. Hmm. feneen te pareegoo ci de yaa ngi waaj. maa ngi waaj nga jëm su Brown ak ñoom ñëpp fi bàyyi dama koy jël. lay ñoom ñëpp damay jël ma koy jël. jam su ban ñoom ñëpp yooyu xam ne surprise la li mu fi bàyyi dañ koy yaaba jël ko def ko beneen yaaba composition. dégg la rek. olof képp ci olof lay doon. kay maman ci tubaab lañ ko wooyee. ak ak xoma lan waaw mais rek la. waaw dégg la rek. ah man de personnellement James Brown <laughs> def sa yëfu balanta. dinaa déedéet déedéet ci ci wallaay ci clip bi mais tey ak fii jamono toll est-ce que wax lu baax yomb na. waaw mais loolu amatul moom nga fi fekk ñi koy fi wax nag ñu ngi fi ba tey waxoon naa benn interview ne nitu valeur yaa ngi fi ci réew mi bougé wuñ demul fenn ñi bañ a ngi bañ ba tey ñi def ñeneen ñi ngi def ñeneen mais lu yàqu moo ëpp de nga waxatuñu lu baax yàq diggante yi. nettali sa xarit tooñ ko yàq teraangaam buñ ko may mi ngi ci societé mi ngi ci ménage yi mi ngi ci foyer bi mi ngi ci fu ne foo dem rek am na ku dul wax lu baax mbaa ku yàq lu baax ki wax lu ki ku dul wax lu baax ak ku yàq lu baax ñoo ki yàq lu baax ñoo ñoo yem képp amatul bariwul tul te lépp war nañ ko defar ndax woy wi jeex jarul naaw te lépp ci nii lay mujj kon jarul nii jarul nii lan lañ a def ci waxante ah, mais waxante yu baax moom lañ bëgg man mii man mi koo way itam may wax def lu baax di wax lu baax man mi koo way sax may wax lu baax di def lu baax jànk parce que wax lu baax déggoo ma ne pourtant yàlla mi teral jaam yi jox na ku ne yëfam te kaas yaa wutee ku yeewu guux yàlla mi séddale def na yëfam mi ngi ci way bi pourtant yàlla tëral na ku ne kaas yaa ute ku yeewu guux dañuy wax lu baax tey def lu baax ci mim réew waaw jëfante yu baax waxante yu baax parce que loolu moom loolu lañ doon ci ñun ñëpp conseil bi man maa ci jiitu waaw man maa ci jiitu ñun ñëpp ñu wax lu baax di def lu baax di waxante yu baax di nettalante yu baax waaw loolu mooy ay nit ñu baax lañu ay nit ñu baax lañu nettalante yu baax wax lu baax waaw bañ a yàq waaw xam nga séq yu baax jël yu baax yi di ko wane fu fu nit nekkul rek sa nit nekkal la fa waaw buñ ko defoon kon xool kilifa yeeg ñuy dimbalanteeg yëpp ñëpp dañuy dimbali waaye ku ci nekk ak sa rek wax ko loo xam ne bu gisee sa morom bu du ko nuyu waaw fu ko teg ma ne fu ko teg may tontu fu ñu ko teg si fu ko teg kay fu ko teg fu ko teg dañuy wax lu baax tey jëf lu baax waaw moo tax moo tax wax bi dafa am solo. am na solo te ki ko wax doonul comme ni ma ko waxee sama présentation rek nekkul loo xam ne bett na Sénégalais yi ndaxte it dama maa soo dugg plus de vingt ans ñu lay déglu. Hmm. soo boobu ba boobu damay ñamale rek pour wax la ne mën naa yooyu jànke dama bàyyi sa yooyu waaye dama croisé bouton ba rek nga war na xam ne mën naa ko def benn bouton ba mu wàcc waa rajini ndaw waaw dama ndaw <laughs> waa tuuti ndaw tuuti ah yooyu sama yëf la dama bàyyi nag mais mënu naa sexé dama ñamale rek pour wane ne créé jël képp waa Swarovski yu a def waaw agencé dugal yëf waa sexé sexé yu rafet yu raffiné sexé ba ne moo daanal ñu bëri nag sexé kat yëpp ma woo ndax xam nañ ne def naa génn yëf ya waaw def wane yëfu tubaab def yëfu kayma ma jël converse ya boole duntu ganaar Ah, tul pétrole ba def ay yëf waaw njëriñu saag ba waaw yooyu yëpp xam nga jaar na ñaar ñaari fan sa Europe pour wane na ñame la naa xam man fi mu toll su ma neexee def mu mu rëy ci la ma moo tax nag kay ma maa bett leen ndax yi may sol rëyal ko def kol ñu teg ma ay xam man disket la waaw tur ba teel dem rek mais duñu ay mag noonu non yàlla moo nu natu donc yooyu ne dafa am solo ci ay kay mama ak lu mu mënti doon bu subaa ñu def beneen clip def tradition wax li ñuy wax def yëfu tradition artiste artiste jànk day bëri facette ah Habib Faye yàlla na ko yàlla yërëm invité ma jazz man na mujj invité jazz gis fooyu mu doon lu neex ma toj fa Habib Faye wala asim artiste day bëri te buñ la jàppee profession yi Europe day mel ni comme solo doon def aar ah, dafa nekk ci sunu deret loolu da ci bokk loolu war ay kay mama kay mama yow moo mag morceau bi manu mag morceau bi yow bi ko waa Kassab di way xanaa kon yow xale nga mi ngi bëgg a yàgg kay mama kay mama ëpp na vingt cinq ans de moom ak xale yu bari waaw ko na léegi nag mag ñi ñëw waaye yow kii neexul kay mama la way di waaw da leen impressionné waaw dafa foogu nu ko foogu nu ko bett naa leen foogu nu ko hmm. mu mel ne mbégte boobu aussi mm, waaw waaw boobu euh, effectivement sa première sortie c'est foofu la donc euh, foofu ay soppe la femme xale <coughs> teel a jàngi yàgg fa am fa expérience moom moom moo dimbali ci lu bari ndax le meilleure expérience c'est de voyager yow ki tukkiwul ak ki tukki doo leen bokk mm, la fay jàng moo tax waaw waaw mooy mooy l'école de la rue muy tukki dem fa nag ñooñu bëgg ma nag ba waral sorti boobu am solo muy sa première sortie di euh, Kay Mama la soirée sénégalaise nga xam ne ba koy tëgg di ko waajal Genève incha allah le 30 juin te yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm ma ci woo ñëpp diaspora. Hmm. sànq sa jàng ma école de la rue jàngu ma fa école dama fa jàng fa uti woon xam-xam dama fa dem. mu neex fekk na ma fa mu naqari fekk na ma fa toog naa mës naa toog jaaxle mës naa toog stressé mës naa gis loo xam ne mësuma ko gis yooyu nag dafa baax ci nit ma jàng fa lu bari nag wax dëgg yàlla jàng fay at ñibbisi waat fii ci réew mi te ñu ma fi nekkoon itam ba tey bàyyiwunu ma ma am fee amul fii nag loolu da koy téye moo tax loolu c'est important. Hmm. waaw waaw jaar nañ fa lu métti xam nga ab jaam xam man tout le temps damay sóor loolu man du man bugguma du ma jaam boo xam ne chaque jour damay ñaan rek lu neex ci man nit day am ndok robu ne buy xeelee dina xol-xolal ndokk dafa am solo nit buy neex sa war ngaa tiit rawatina booy xale sa waajur teel a génn àddina suma yaay gaañu na suma papa gaañu na mais suma mag yi nga fi fekk ñooy sama kilifa après da ngay wéet parce que da ngay manqué affection te waajur dara gënu ko foor xam da dem ba adduna mook loolu ànd dara neexul yàlla addinaam ji moo ko moom wallaay asi boo ci jotee sa bakkan di noyyi mën nga ko neexal ba mu neex waaw yooyu yëpp ay mën nga neexal sa ba mu neex waaw wallaay asim ku dul may sa bopp loo am jëlal te sant nañ ko ba wér ndax sag bi mu ñu defal suñu borom waa mooy mooy keroog bi nga bi nga xam ne woote naa sama yaay feebar mu ne ma ñibbisi nga buggul boobu boobu feebar boobu soo yóbbu ko ne pour ma ñëw mu gis ma te mënu ma woon dem aw ma kayit aw ma dara mënu maa ñibbisi waaye keroog bi nga xam ne bëgg na maa gis te mu feebar dama bàyyi lépp ñëw seet si ko te boobu gaañuwul sax ba ma pareewaat ma delluwaat waaye la fet que keroog ba ma wooyee te yaramam naqari keroog bugguma dara ndax tukki dafa metti ñuy ñaanal nañu ñuy tukki ñëpp li ñuy uti yàlla nañ daje moom Europe dafa metti Europe dafa metti foog nga nekk fa dund fa pour mën a expliquer li lay expliquer nii wala ay góor lan te lu nu am réew mi leen ko jox waaw waaw Europe li ñuy uti yàlla nañ daje moom ñoom li ñuy uti yàlla nañ daje moom Europe dafa metti Europe dafa metti trop stress waaw stress bëgg jom fajar la ñuy xëy bëgg jom rek ak seen wajur te loolu vraiment metti na trop trop trop sax trop waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw ñu ngi góorgóorlu muy muy foofu ak fii ñoo yem fii ak foofu ñoo yem fii ak foofu ñoo yem yaay bëgg dara rek nit moom Europe ak marché tile nag Medina ak yëpp a yaay bëgg liggéey rek nga liggéey yaay bëgg leneen rek nga def leneen ak jom moom boo ko amee dëgg ñu ne àll xamul nit ku baax waaye nit ku baax xam boppam kooku moom ñu ngay liggéey am jom man loolu laa xam ci jigéenu Europe bi liggéey nanu am nan jom ñun fa lan newoon jom lan fa nekkee ak liggéey keneen ku mel ni man it jom la fa nekkee ak liggéey waaw loo gis rek am na ku ne ci lig dëkk ba def li ko saf kee deful li ko saf am waaye ñu ngi liggéey am jom liggéey seen liggéey jigéen ña góor mënu leen ci jom waaw man nii laa leen fekke de jom rek hmm. Hmm. waaw mais ñoom <coughs> xam affection day am léeg-léeg xam bu buñ lay nettali de affaire Europe Europe dafa métti am na ci yoo xam ne foo nga dem sens la li mu métti métti am na ñoo xam ne buñ demee neex am ñoo xam ci demul buñ demee duñ neex la am ñoo xam ne ñu toog fii neex la yëpp affaire sens la rek léeg-léeg nga am doom joo xam ne da koy ñiimantal ba doo bëgg mu tukki ci chance boobu rek lañ koy waxe waaye am na ñoo xam ne tam bëgguñu seen doom dem fen waaye dara ñaw ci ay yëfu kii yaay nab ci doom waaw am na solo internet yi Sénégal TV ak kaw bi yëpp ñu rappel ko Papa Soda Bousso lañ dalal tey ñu nag di waxtaane li nga xam ne mooy clipam bu bees bi kay wax lu baax. Mhm. ak sañse yu naay. <laughs> merci beaucoup. <laughs> ndeysaan. dama ci doyal. Mhm. ba tey moom Soda Bousso dañuy jàll ci beneen transition. Mhm. ak waxtaan tabaski tabaski ak pension tabaski ak dépense tabaski ak ñi nga xam ne ñooy seen ci kër yi si yeneen xaar. tey lan ngay ko nag jànk nit ku ne defal li nga am rek nit moom soo bëggee noppal ko defal li bu dugg ci dara <laughs> boo dee boo amee njëgu mbote nga rey mbote boo amee njëgu kuy nga rey kuy àddina kay boo bëggee noppal nag maan defal li nga mën. li nga mën day jeex yàlla tegu kenn ku ko mënul waaw moo tax dañuy ñaan jullit yëpp yàlla na leen ko yàlla yombalal bu baax ndeysaan sant yàlla réew mi dafa metti dafa metti waaye yàlla am na lu ne moom mooy xëy séddale dépense ca kenn woowu ko añ incha allah dina tëral ñëpp moo fi indi ñëpp dina tëral ñëpp mais dafa metti góor ñaa ngi ci kër ñi te mënunoo yuuxu bu metti de poudre fi nekk ak sagu rek dolliwaat poudre sagal sa bopp waaye la vie est dure mais yàlla am na ko am na sutura am na sutura. ndekki yaa borom ak tabaski ba tey ci la ñuy taxaw ndaxte am na ñoo xam ne ñun suñuy waaj a tabaski pression boobu day nekk ci seen bopp ba instant bi sax toog seen kër moo leen gën a def am na ci ñoo xam ne dinañ am compréhension mais am na ci ñoo xam ne dinañ ko fajee ay gaara wala wala dégg ñu la nekk ci période bi. amul gaaral kenn nit ko amul lu mu joxe mënoo fexe ba mu jox la ko ay gaaral yooyu nag vraiment ñu mën naa ñàkk nit bu amul lu mu la jox kay dëkk bu métti bi dañuy comprendre ñu ngi nag ñun bëgg na te amul dañuy jël nag sentiment yi di koy indi nag nit bëgg na def dara te amul moo tax yàlla di fay yéene yàlla yéene lay gën a fay ka jëf da ngay bëgg ko am dara yéene la te amul lañ nañu jàppale nit ñi rek ndeysaan am am du dara sentiment moo ëpp doole moo ëpp valeur or yi ni takk ni sentiment ko gën a ëpp jamaa sax sentiment moo ko ëpp doole di dimbali ñi ngi di sëyloo xale yi ah xam nga tey ku la war a defal ay teraange njëkkee ak yooyu ndeysaan te may la respect boo ko soxla mu ñëw boo ko yónnee mu dem kooku bu amoon dara may la dañuy jàppale xale yi bu baax àddina yëpp sentiment moo ko gën nit ku am lu mu la jox munoo fexe ba mu jox la ko te boo ko xasee baax na nag ko am lu mu la jox boo ko amul mu xas la hmm. Hmm.

na nga cinq heures daal jàng euh, kii sama doom ji moom fexe ba am ju ju ko ju gën cinq saison moo ko gën dëgg sa coton def sa yëf may sa goro jàmm moo gën nag mu gën sax la ko xa tabaski may sa goro jàmm may sa njëkke jàmm ñoom it waaw may leen jàmm sëy sëy bu rafet yow def sa coton def sa yëf service service moom ci ni rek lay doon def sa yëf def say feem tabaski du dëgg ñu ko amul yàlla defal leen ko ñun ñi nga xam ne amaguñu borom kër yàlla nu ko yàlla may ba nu tabaski tabaski ji sax yàlla buñ ci génn waaye tabaski bi yàlla buñ ci génn bàjjo def sa yëf jaagar jaagari loolu la jigéen di ñaan waaw hmm. même fa si hmm? waaw si si ñu ah, tout ma fille yàlla mooy def loolu c'est le destin am nu ci benn jomb jomb ndax beauté jigéen mooy ne ci biir këram ku la ko wax ak ku la ko waxul kenn ñaanu yàlla toog rek à vie éternelle la femme est née pour l'homme l'homme est né pour la femme c'est tout ñaan yàlla yàlla nag mooy dogal yooyu mbiru suñu borom la kër oto mag doom yàlla moo koy jox nit du am am waaye bu la séddee am yoo xam ne séddal na la ko am yu mu teg dañuy ñaan moom mu yombal ko ndax moom dara tewu ko te moom li gën rek la am waaye lu gënul dina ko fexe ba mu gën parce que dañ koy ñaan loolu jigéen da koy sabab lu ñaan na du sa doon sa coobare dafa am ñu lay tooñ naa est-ce que bëgg na déedéet loolu si est-ce que bëgg na non est-ce que bëgg na non est-ce que bëgg na non ah, est-ce que bëgg na non niveau no ay niveau amu ci noonu ay am na loo xamante ne comme ñun ñu fi toog ak Seynoo yooyu du xaalis amul dara lu ñu fregee yàlla mooy dogal ko xaman ko ne da ngay dem rek wax kan la du noonu doo bëgg a toog benn kii non ay meuble déedéet loolu natt day am nag on peut pas yu bari du ko mën expliquer na ñu ngi dun comprendre xel yi moo dul bari ak mentalité yi waaw waaye buñ ko xoolee yëfu suñu borom la say ñin fi guddi lay wàcc borom du ko jël euh, ma ngo nit dina dee ñin fi guddi di doxit waaw moo tax ay yëfu suñu borom la lu jot yomb mais yàlla na ko yàlla yombalal waaw lu jot yomb hmm.

ñu seq respect nawlante nawle moom nawlante rek te man itam may nit ku baax di nit ko amul benn problème nit koo xam ne nit kese la te aw ma benn ki ñaan soxoruma dunu ma nit bu soxor mënuma ko sax waaw ñu bari xam ne loolu sama xol dafa rafet te moo tax ma seq ñëpp jàmm fii laa ko njëkkee ci sama kër yaay bi nga ma fekk bi nga ñëwee samay mbokk rek nga fi fek waaw noonu laa mel aw ma benn problème ñi ngi xam nañ ko kaf ak réer laa bëgg ak may sama alal ak def lu baax su ma ko amul toog waxtaan mais aw ma benn kiñaan siqumaag benn nawle en lu ma wax ma ñëw jàppale leen ca bu nu amee guddi ma jàpp ca bu ma soxlaa ma ñëw loolu mooy àndub nawle tànd naa ko ñoom showbiz yi nga koy nañu taxawal. sama doom ji daf ma daf tagal sànq woy ba dama jooy lii ay ajjuma dina métti trop yii loolu ëpp na loolu lii no Viviane way na de dama jooy sànq laa déglu way intégralité la ma ko tagal sama doom ji ma sëriñ sa jëy moom dafa baax parce que demee bi muy jóg daf na bunge ma yóbbu ma France ñu ànd fële fan demoon fa muy tëggi ñu dem fa tubarkalla laaw la cat mu defar teg man lu baax jëlal ma suite teral ma yóbbu ma Champs-Élysées may dem mu yëkkati ay millions yu bari jox ma Olympia jox ma sama dayo ànd ak man plateau bu mu taxaw ne ma yaay bunge ma waaw Philippe Matigay ma loolu yàgg na nag ñu koy ñaanal mu am ci dam bu baax waaw dama ne su ko ba ngoon jëlee ab tab kenn gënu ñu ko baax la. léegi sama rakk léegi moom fa laa demoon fa laa sànq ñëpp gis nañ ko da ñoom samay ñoo xam ne yàlla ñoo nu boole yàlla moom ma boole ñoom muy sama rakk ju baax ju ma bëgg fonk ma tayabu ma bu may bu may xool day sëgg minu ma benn yoon am fu ma teg waaw jàllu jëri te cër rek moo neex te cëral nan ma. Hmm. te gis nañ yenn artistes yi ñu ngi leen di jëlee position naam jiitu ngeen ngi gis yenn actes yoo xam xam ne dina doon luy continuer wala loo xam ne day yëkkati soo gis te que xaar ñu ci wax ah man yàlla rek yaa yaakaar de. noonu ku ñu saboté jëlal yàlla teg rek ndax réew mi foofu la toll. moo waral kaay wax lu baax ñun ñu waxatuñu lu baax lu waaye am jël fii fii la mi toll de ñun ñu waxatuñu lu baax dañuy yàqal seen i nawle yi nga wax yëpp mën na ne de waaye yàlla bu mu am de parce que nit ñi dañuy yàqal seen i nawle bëgguñu ko am lu baax man de xaw ma li xew léegi yàlla na yàlla seral kun fi yàqal na te sa liggéey nday yàqul duñ la mënal dara ni day làqu ci yàlla téeméer yu yàq te yàlla yàqul moog zéro yam te yàlla mi yàq yàqul yi foofu moo ko moom làqul daal am say ñaan wajur yàlla fay la sa xol fu waay nekk rek yàlla na waaye nu ñu gisee mbir mi léegi dañu ñaan yàlla seral parce que daal maa xool xool way wi xoolaat ko mooy way actualité kay wax lu baax li daal amatul njariñ ah fu ko te ah kun fi yàqal te yàlla yàqalul daal moog zéro yam waaw yàlla nañ jël yëpp jaam day gëm yàlla waaw jaam yàlla mi moom yëfam yàqalul kenn kon jaam bu bëgg a yàqal sa nawle nga làqu ci gannaaw yàlla ak say ñaanu wajur ànd ak yàlla lu dul yàlla nen la yàlla rek fi ne kese dama koy wax kay ndax lu baax la fiindi indi wax lu baax léegi amul njaariñ fu ko teg ah xam nga dafa fekk ma sonn waaye xam nga ne wax boobu teg ba rek boo ko dégloo rek xam na rek ne wax ba jub na defe naa neex na la nag yow waaw yow neex yow kaay wax lu baax neex na la waaw daa sëni ko mbaa dugal na ko mbaa mu ngi ci biir waaw kaay wax lu baax na dugg de na dugg ba ci biir xam nga moom sama sama site la mais wax lu baax rek maa ne mu am solo ci yéen ñëpp ak ku mu mënti doon koy interviewer sa waxal lu baax waxal lu yiw rek waxal lu yiw yi nga fi wax yu baax yi nga fi wax dara pewo bu la yokkul du la wàññi ñëppay sawar ku ci gis gis ci sa bopp du la wàññi dara ay vulgarité ak ay yooyu amul benn njëriñ doo mënu fenn ñëpp a fi ñëpp a osé pour wax n'importe quoi mais on n'a pas le droit du yoon du yoon day des bilaay amul njëriñ kay baax kam solo hmm. bilaay maaleykum bilaay xanaa maa ngi kontaan bu baax nag naan ne di la ñaanal yàlla yàlla dolli su sutura may la wér li nga micro bi nga gàddu li nga bëgg yàlla nga ko am yàlla dund ba nga yor say situ bopp te yàlla mën na ko góorgóorlu rek ndax yéen vous êtes brave seen liggéey dafa metti li ngeen di def dafa metti yombul da ku jël micro am nga nattu waaw liggéey boo xam ne dafa doy waar nattu mënta jël micro mbaa wax ci micro ñun matunu dañuy juum rek waaw donc yàlla def lu sutura Sénégal ñu déggaat ko fu ne ci àddina yàlla dolli ñu sutura ñun tam wér di ñaanal réew mi jàmm ndax Sénégal ñëpp mu bëgg naa suma xarit yëpp gërëm sénégalais yëpp gërëm ñëpp parce que man ñëpp ma bëgg waaw nuyu naa ñëpp bu nuyoo nuyu naa ñëpp samay mbokk kër ndey sama kër mbokk kër baay ñëpp maa ngi leen nuyu waaw kontaan naa bu baax di jox rendez-vous ci beneen yëf boo xam ne dañ ñëw toog ñu def xawaare fi bëgg naa fi xawaare woo leen woo nga ñëw hmm? non dafa toq tey baas waaw hmm, dafa toq tey baas ak musóor ñëw toog ni ñu toog di waxtaan di def ba mu baax parce que ñun ñoo bokk lépp te ni nga ma soppee rek bilaay noonu laa la soppe koo bëgg bëgg na la koo bañ bañ na la bu yàgg dala ko soon a wax <laughs> kese man lii rek la wax de rek maa la wax prochainement. Portez-vous bien, jërë ngeen jëf.